mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey suñu aaye bu jëkk ci suuratu shura alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ñu ngi yee salaat sant suñu boroom subhanahu wa ta'ala mi ñu wërsëgal ñu dajawaat ci ab néegam fas yéene jàng ab téeréem mu wërsëgal ñu it mu nekk ci li nga xam ne nii mooy shahru ramadan nekk it ca la nga xam ne mooy mujjam ga ñu ngi koy ñaan jalla wa ala yal nañu yàlla nangul daje bii ñu daje ca jagleel ñu lépp lu ci ab yonentam digle woon kon incha allah ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سن بروم جل وعلا مني بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف يلا مو خم لن لا ci jublu كذلك يوحي إليك naka nii day lañuy wax yoo jëme ci yow wax yu mooy xabaar boo xam ne ci yow rek la lañ ko jagleel wa ila allazina min qabli ñale fi jiite woon it nii lañ doon wax yoo ci ñoom allahu alazizu alxakim yàlla mi nga xam ne moo not lépp ca kattanam nga mooy ci xereñi lu nekk teg na ko fa mu war a tege lahu ma fi samawati wa ma fi l ard moom la ñeel lépp loo xam ne mi ngi ci kaw asamaan yi ak lépp loo xam ne dafa nekk ci suuf wa huwa al aliyu al azim mooy aji kawe ji mooy aji màgg ji takaadu samawatu yatafattarna min fawqihinna xaw na day asamaan yi di xotteekoo ca seen kaw walmalaikatu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim malaaka ya ñoom nekk di sabbaal ci seen cantuk boroom wa yastaxfiruuna liman fi l ard di sàkkul njéggal ña nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf ala la am day inna allaha huwa alghafuru rahim yàlla mooy aji jéggale mooy aji yërëmaate ay jaamam wallazina ittaxazu min dunihi awliya ñi nga xam ne nag dañoo jël gannaaw yàlla ñu ñuy féetewoo allahu xafizun alayhim yàlla day mooy wattu ci ñoom wa ma anta alayhim bi wakil yow nag doo nekk koo xam ne yaa nekk ku leen di sàmm ba baa ñuy jëfe ay ndigal mi ngi noonu mbokk kon lii mooy suñu ñetteelu xaamim ci li ñuy tuddee alu xaamim suñu borom yàlla bii faa mu dolli ci ayn siin qaaf lañ ca waxoon rek mooy lañ waxoon ca yëkkat jiitu xamal ne daal moom heure boo ko jàngoon nii am nga ci yow juróom fukki tiyaaba ci xuruf yi nga jàng suñu borom nag mu ne yow yonent bi ñun ñoo la wax yu noonu it lañu wax yu woon ñi la fi jiitu te bokkoon na ci waa Makka la nga xamee ni nii moom moo nekkoon seen problème mooy Muhammad mii dëkk ak ñun nekk ak ñun xëy xëy na yàlla ngi wax ak moom suñu borom nag ne ko gis nga ñi fi jiitu woon it nii rek laa xëyoon di wax ak ñoom waaye suñu borom dégg nga li mu wax mooy min qablik loolu dalay jàngal mbokk julit gannaaw yonent yàlla muhammad yonent dootul am ci kaw suuf yonent dootul am ci kaw suuf donte ne ni am na benn hadis bu abu dawud solo ak keneen ku dul moom nee na bala àdduna tukki dana feeñ fanweeri nit ku nekk day jàpp ne moom yonent la fanweeri fenkat la wax kazabuna salasun képp ci ñoom jàpp ne yonent la waaye wala nabiya baadi xam leen yonent du am sama gannaaw niñ ko doon waxe daa iman mooy képp ko woote ne yonent yàlla la léegi ñaari mbir rek moo mën a am nga gëm ko weddi yonent yàlla muhammad wala nga gëm yonent yàlla muhammad weddi ko parce que muhammad yonent yàlla muhammad ñene yonent du am sama gannaaw loolu it dañuy wax sur le plan universel bu doon ci la ñuy waxe rek doy na tafsir ba doy na foofu am naa boo ñëwoon ba ñu dëkk bu ñu mel ne Sénégal it da nga ci dolli ne yàlla day dootul yónni yonent gannaawam waaye bis bu faatoo it yàlla du ko juddulaat di ko yónni waat gannaawam loolu moom bu dee Sénégal fokk ñu dolli ko ci ndax am na ñoo xam ne gëm nañ yonent yàlla Muhammad mooy dernier yonent xaatama nabiyyi waaye nag nee nañ yàlla du ko yónni ñaari yoon da ko yónni woon mu weex mu wëlbati ko waat yónni ko waat mu ñuul ni ngay weddee ma sàmba mee ne yonent yàlla la lu ko raw nga ba nga war a weddee ñi ne yonent yàlla moo ñëwaat ndax ñooñu ñaari dóoral lañ dóoral dóoral nañ jikku yonent bi sallallahu alayhi wasallam bila dalil dóoral nañ masamba mais am ndey ak bàyyi ak njaboot ñu ne mooy ab ab yonent la loolu ñaari dóoral la yu ñu dóoral la ñu bàyyi ci xel bu baax doonte ne mbokk lu bari ci nit ñi seytaane nax na leen Abdullah ibn Omar ca jamonoom dañoo ñëw ne ko am na bu ñu waay benn waay bu ñuy wax muxtaar day nee na dañ koy wax yu mun a ah mbaa weddiwu leen ko ñu ne ko ah dañ jàppoon ne yonent yàlla muhammad mooy xaasama nabiyin mu ne xanaa da ngeen jàngul la yàlla wax ca an'am mi ngi noonu mooy la nga xam ne moom mooy al jinn shayatin al ins wal jinn yuuxi ba'duhum ila ba'din zuxruf al qawl mu ne seytaane jinne yi dañuy wax yu seytaane nit ñi loolu it bari na fi ay nit ñoo xam ne dañuy jóg ne yàlla wax yu na leen ñoom ñooy xalifatullah fil ard yàlla wax yu na leen ñooy nangam ak nangam wallahi lazi la ilaha illa huwa ñaar mu mën a am truand la bu bëgg exploiter nit ñi wala koo xam ne ay jinne ñoo ko jàpp ku xamul sharia ay jinne jàpp ko ndax am na ci koo xam ne jigéen la ci Sénégal gii la nekkoon Sénégal gii la la la nekkoon fii ci Gibraltar nee na daa xëy suba ji liggéey am ñaari jëmm yu rafet yu ko woo ci kaw asamaan bi kenn ki ne ko man la jibril kii mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi yow yàlla yónni na la yow it yonent ga mi ngi noonu yal na yàlla yërëm suñu mbokk ba oustaz Bamba Ndiaye oustaz Bamba Ndiaye nee na dem naa seeti ko ba muy ba mu seetee wax ak moom ba pare nee na bi mu génnee dafa waxoon kilifa ya toog ci biti ci ay kilifa toppoon nañ ko de yaakaar naa xaw ma daaw ba fay na ba teyam déet mu ne leen daal li ma leen di dégal seen mbokk mii su dee da ngeen ko yërëm yóbbu leen hôpital ñu fat ko mooy dafa feebar mi ngi noonu waaye du tee mbokk jeexitalam am na fii ci doomu aadama yi yàlla moomu moo wax yu te ki mujj wax yu mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy xakim ku nekk xam na lu nekk fa mu koy teg borom boobu nag ni moom mi nga xam ne mooy al azizul xakim moo moom lépp lu nekk ci kaw asamaan ak suuf te mooy ki kawe mooy ki màgg heure boo jàng téere boroom bàyyil xel al asma wa sifaat mooy turu yàlla yi ak melokaan yi yàlla yi muy tasaare ci biir aayaam sa borom yàlla mi ngi noonu boo xoolee fii wax na la ni mooy al aziz mooy al hakim mooy al ali mooy al azim aaya ba ci topp mooy al ghafuur mooy al rahim yooyu yépp ay tur laa ki melokaan yu jullit war a bàyyi xel borom boobu nag subhanahu wa taala ni lii di asamaani juróom-ñaar xaw nañoo tasaaroo ngir ñaari mbir mbir bu jëkk bi ragal gu ñu ragal yàlla ak màggal gu ñuy màggal yàlla loolee diis na ci ñoom te xam ngeen suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na xatta montagne yi li ñuy dëgër dëgër wa inna minha lama yaxbitu min xashiyati llah léeg-léeg am montagne boo xam ni day am benn wàllu gute màbb na xëf lan moo ko waral toroxle gi montagne bi toroxlul yàlla moo waral loolu ñaareelu mbir bi tax asamaan ak suuf xaw a xotteeku mooy doomu aadama yi bi ñuy wutal yàlla ndend ak bi ñuy wutal yàlla ay doom keroog bi doomu aadama jëkkee ne yàlla am na doom suñu borom jalla wa ala mu ne takaadu samawaatu yatafattarna minhu wa tanshaqu al ard wa taxirru al jibaalu hadda an da'aw lirrahmani walada asamaan ak suuf xaw nañoo explosé biñ déggee doomu aadama ne yàlla am na doom suñu borom tàggat ay malaakaam ñuy sabbaal seen tettug borom te loolu it yow julit nga la waay góorgóorlul baril tasbix rawatina sabbaal sa cantuk borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki nga xam ne bu xëyee suba wax subhanallah wa bihamdihi cent fois trois minutes la lay jëral maximum trois minutes ci sa ci sa temps ngoon nga wax subhanallah wa bihamdihi cent fois trois minutes nee na bisu keroog nit mënul def jëf ju gën a rafet bi nga jëf yal na yàlla jàppale ñu ci yàlla bu ñu ko seytaane fàtteloo ñu ngi noonu dañuy sabbal seen cantuk boroom ba pare di jéggulul waa suuf ndax yàlla mooy aji jéggale mooy aji yërëmaate ni ñu ko jàng ci shura lañ ko jànge woon ci ghafir allazina yaxmiluuna al arsh wa man xawlaha ila axiri kon malaaka yaa ngi noonu bokk ñu ñoom melokaan teewul ñu ngi ñu yërëm dañuy jéggulul ngalawaay yi wit melal noonu del jéggulul sa mbokk jullit yi foo mën a toll gannaaw ba nga jégguloo say bakkaar te xam ni ci tuyaaba ji gën a rëy la bokk bari lal ngallawaayu bëccëg bu nekk mooy bis bu nekk baril di wax rabbi xfir li walil muminin yàlla yàlla na nga jéggal maag julit ni wala neexoon sax boole ci say waajur comme na ko nuux waxe rabbi xfir li wali walidayya walil muminina walil muminat len dongal la ci mën a génne say waajur dee ci kéefir waaye képp koo xam ne ay waajuram masuñu nekk ci lislaam ñu ngi dund wala dee nañu rabbi ixfir lii wali walidayya walil muminina wal muminat ay yàlla yàlla nañ ma jéggal maag samay waajur maag julit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi mbokk mi ngi noonu borom bi nag ne waaw yàlla mii nga xam ne mooy al aziz al hakim al ali al azim al ghafuur al rahim ndax nit ñi nag dañuy jël keneen ku ñuy féetewoo ku dul yàlla ndax keneen ku ñuy yaakaar ku dul yàlla keneen ku ñuy sukkandiku ci dul yàlla suñu borom yàlla ne déedéet ah suñu borom yàlla nee na ñooñu day maa ngi leen di sàmm ay la ñuy def dara rëcc ma ci amma yow nag sant ñu la nga topp leen ba ku nekk jëfe liñ la sant rek mooy topp leen ba jottali leen mi ngi noonu Cheikh Ousmane
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب
barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne wa kazalika awhayna ilayk naka noonu day lañu wax yoo jëme ci yow qur'anan arabiyya alquran du ñu wàcce ci lammiñu arab li tunzira umma alqura wa man hawlaha ngiree nga waare ci ndayu dëkk yi muy makka ak la wër makka wa tunzira yawmal jam'a nga xu waaraate xuppaate ci bisu daje ba laa rayba fiihi benn sikkaamu ca fariqun fil janna dana am kuréel guy nara wàcc ci biir aljanna wa fariqun fi sa'ir ak kuréel guy nara wàcc biir sa'ir walaw shaa allahu la ja'alahum ummatan wahida bu neexoon yàlla day mu def leen ñu nekk benn mbooloo benn rek benn giir benn walakin yudxilu man yashaau fi rahmati waaye mooy dugal ku mu neex mooy dugal ku ko neex moom yàlla ci yërmandeem wa zalimuna ma lahum min waliyin wala nasir amma tonkat yi du leen ñeel ku leen di féetewoo wala ku leen di dimbali am ittaxasu min dunihi awliya am doomu aadama yi dañoo jël gannaaw yàlla ñu ñuy féetewoo fallahu huwa alwali yàlla rek mooy féetey dëgg wa huwa yuxyi almawta moom dong ngay dekkal ñi dee woon wa huwa ala kulli cheyin qadir te moom mooy am ki am kattan ci lu mu mën a doon wa ma xtalaftum fihi min cheyin loo lépp loo xam ne jooyoo jooyoo ngeen ca ci lu mu mën a doon fa xukmuhu ila allah atteb loolu day ma ngay dellu ca yàlla zalikum allahu rabbi kooku day mooy yàlla mi sama boroom alayhi tawakkaltu ci moom dong lay wékku di sukkandiku wa ilayhi unib ci moom dong it lay dellu ci lépp lu ma yaakaar wala lépp lu ma ragal mi ngi noonu bokk suñu borom day wax ne kon yow yonente bi waxyu naa ci yow lii di alqur'ani arab ngiree nga mën a waar waa makka ñu comprendre ak ñu wër makka loolu kon niñ ko doon waxee ca yaakaar naa démb ci mujj alxuraan ji yàlla ko wàcc muy làmmiñu arab ba pare yàlla yónni ko ila kaafatan linnaas te yonent bi benn langue la xamoon muy langue arab léegi nag kon luy pexe mooy mboolem yeneen langue yi nga xam ne yàlla xam ñaati junni la langue bu nekk war nañoo fexe ba lii di kàddug yàlla ga ñu jottali leen ko su ngi noonu yal na yàlla dolli yërmande kii di Malik Fahad ak ña koy jàppale ci Arabie Saoudite complexe am boobu soo demee presque lu jege ñetti téeméeri langue ñi ngi koy traduire téere yàlla bi di ko tasaare ci goxi adduna bi loolu kon mënul ñàkk jaago yaag soose yaag langue bu mën a doon jataay yi war nañ koo amal loolu warul ñàkk ci benn langue ci kaw suuf war nañ amal jataayub jël téere bi yàlla bi di ko firi ca la nga xam ne mooy langue ba ñu dégg commencé nga ci makka waaye ak li wër makka lépp li wër makka lépp ca mbokk suñu borom yàlla makka da ko def ci kaw suuf daa nekk mu xaw a nekk ci diggu ci li doomu aadama yi dëkkee loolu di xéewalug yàlla tey jii bu doon tele ne nit ñaa ngi aji aji ji ca Australie doomu aadama yi daañu am ñu ci sonn lool nit ñaa ngi aji ji ca extrême Canada daañu sonn lool waaye daanaka fi mu ko dugal dafay doon place boo xam ne arrangé na ñëpp jàll waala léegi kon na nga waaraate waaraate boobu day dem illa kaafatan li nas ñëpp ngay waar borom boobu nag ne lan ngay waare mooy nit ñi waaj ci bisub daje ba bisub daje ba mooy ban bis bu yàlla di dekkal suñu bay aadama dekkal lum mës a jur yàlla dekkal seytaan dekkal kuy jinne yàlla dekkal baayuma yi yàlla dekkal lu doon naaw lépp yàlla dekkal leen mi ngi noonu isa shamsu kuwirat ba ña ngi ci dégg borom bi waxu xoshirat ila axiri borom bi subhanahu wa taala bisub daje boobee nga xam ne ca la doomu aadama yi dajeeg seen borom borom bi nee na benn sikk sàkk amu ca mi ngi noonu bu ko régee dañ xaj mbooloo mi benn kuréel ñooy tabbi aljanna yal na yàlla boole ñu ca beneen kuréel baa nga tabbi sawara ca mbokk bu doon te ni suñu borom yàlla nee na yowmal qiyaama sama jaam yi dama leen xaaj ci digg bi benn partie bi dem aljanna benn partie bi dem sawara loolu du tee jullit bi di tiit ba baa muy xam benn partie lay bokk waaw ana nag bu dee yonent yàlla bi nettali nañu ne yàlla bu dajalee ay jaamam benn partie ba mu koy jëlee day nekk un sur mille junni nit ñëpp kenn mooy mucc dem aljanna mi ngi noonu la fa daje mooy mille milliards un milliard mooy dem aljana neuf cent quatre-vingt-dix-neuf milliards ci des yëpp sawara lañ jëm loolee kon niñ ko daan waxee toujours xale bi nga xam ni mooy xale bi jël premier ci classe bi dàq cee jàng du tee moos bu jëmee examen xelam du dal lu résultat yi daa génn loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu subhanahu wa taala ni su ma neexoon yéen ñëpp ma def leen benn mbooloo comme ni mu ko defee ci malaaka yi boo ko malaaka amul koy may yàlla laa yaasuuna allah ma amarum wa yafaluuna maa yumaroon ndax ñoom ñi leen yàlla bindee da leen ne fixé ci ñu jaamu ko duñ ko may mu ne nag su ma neexoon yéen ñëpp noonu laa leen di def waaye yàlla la soob moom mi def lu ko neex ci kenn du ko laaj lu tax mu daal di bind doomu aadama ñi teg jinne may leen xel may leen autonomie ne leen yéen moom boyal naa leen i'malu ma shi'tum lu leen neex def leen yónni ci ñoom ay yonent yonent yi ñëw waaraate ne seen borom yàlla mi leen bind moom leen may leen ay xel day nee na waajal na leen kërug aljanna lii ak lii ngeen di def loo xam ne benn coono amu ci ma yàlla deful ci dina jëm ñu xaraj lii ak lii ngeen di def lii ak lii ngeen di bàyyi su ngeen dee mu dekkal leen tabbal leen aljanna bu ngeen ko deful sawara ngeen jëm loolu mooy li soob yàlla loolu nag moo tax bu ne mooy dugal ku ko neex ci yërmandeem mooy ñee nga xam ne am nañ disponibilité jóg dogu jëm ci yàlla ñooñu yàlla moo leen di teerug yërmandeem tabbaleen aljanna amul kenn koy dugg aljanna fekk sa jëf moo la fa dugal xel sax nanguwu ko ndax aljanna amul fu mu yem du un million d'années du un milliard d'années aljanna ba faww la yow même boo dundoon dix mille ans ci kaw suuf di rukkoo ko sujjóot donc mënoo jënd àjjana kon yërmaande yàlla mu la fiy dugal am maa ñi dem sair maandu teg yàlla mu leen fi dugal te mooy yàlla mayoon na leen ay xel yónnee woon leen ay yonent leeral aw yoonam ñu fetteerlu yàlla bay leen ñu dem tàbbi sayir mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ne ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi muy zalimun suñ ñëwee yowmal qiyaama duñ fa fekk kenn ku leen di féetewoo di leen ñaanal intervention wala di leen xettali ci mbugal heure bu ñu duggee ci mbugalum yàlla mi it kenn du ñëw di leen génne ca mbugal moom it duñu am wali bu leen xañ mbugal duñu am nasir bu leen génne ca mbugal te loolu mbokk moom lu borom bi di wax zalimun amuñu wali keroog bañ gañee keroog ba ñu xaree xare uhud suñu borom nattu sahaaba yi la ëpp ci ñoom daw gaañ nañ yonenti yàlla bi rey nañ ay sahaabam juróom-ñaar fukk waa Makka jàppoon nañu ne am nañu victoire bu rëy Abu Sufyan taxaw ca kaw montagne ba daa di ne ala hubal ay waay hubal aka màgg waay hubal mooy xërëm bi gënoon a màgg bi nekk ci kaaba gi yonent bi alayhi salaam ne sahaaba yi tontu leen ko ne wallahu ala wa ajal yàlla gën a kawe te moo gën a màgg mu ne leen waa baax na ñun lana uzza wala uzza lakum ñun Uzza lañ yaakaar te mooy benn xërëm bu nekkoon Taif Uzza moom lañ jàppoon moo leen di dimbali ci xeex lana Uzza wala Uzza lakum yonent bi alayhi salaam ne sahaaba yi tontu leen leen ne leen allahu mawlaana wala mawla lakum yàlla suñuy péete yéen amu leen péete te it nam ko waxee woon noonu la amee yàlla mujj na leen a jàppale ñu dem toroxal leen ci daje yu bëri borom boobu nag nee na huwal wali mooy kii péete péete ak dëgg moom doo nga mën a jëriñ moom doo nga mën a lor na am xattaa yéeféer yi am na fu mu leen féetewoo ci àdduna moo leen di dundal moo leen di wërsëgal moo leen di sàmm te it ku ci tuub mu baal la amma julit yi moo leen di féetewoo àdduna ak àllaxira borom boobu ne moom mooy am kattan di de dekkal mboolem ñi deewoon na am te loolu la li ëpp ñi jaar ci kaw suuf weddi mooy àllaxira amul borom bi nag mu ne danaa dekkal ñi dee woon te mooy ki am kattan ci lépp lu mu mën a doon wa huwa ala kulli shay'in qadir ngalawaay yu julit kaddu googu bàyyi ko xel bu baax yaakaar naa wax ngeen ko léegi léegi bi ngeen sëlmalee tàkkusaan yéen ñëpp bi ngeen waxee subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 wax ngeen la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli cheyin qadir yàlla huwa ala kulli cheyin qadir su ko defee yow doomu aadama bi lépp loo xam ne nii yaa ngi koy yaakaar mu tëla xamal ne allah huwa ala kulli cheyin qadir yow malade bi nga yor dem nañ ba médecin yi sax ne la kii il est condamné xamal ne wallahu ala kulli cheyin qadir ana ñaata doomu aadama lañ jàpp ne ñi c'est fini ah léegi ñu dee yàlla subhanahu wa taala jaar ay kawtéef ba loolee ah duñ koy waxee ba loolee ñu mucc ca am na benn léeb boo xam ne gars yi dañ koy léeb man sax damaa jàppoon ne léeb la ba ba suñu mbokk bi Hajar Binta Thiaw yal na yàlla sàmm ko papaam ne moom xam na góor gi mu daloon fii la woon hôpital Dantec dañoo dem góor gi yàgg na ci lal ci ci ci lal bi ay lay net nga xam ne suñ mag ngi lañ naan mooy lay jeex na ko fa dugg rek deemu la fay génn góor gi nag yàgg fa ba ba jamonoy tubaab bi la tubaab bi daal di ne bon ñii yàgg nañ fi ne gardien bi am benn piqûre bu mu piqûre góor ga dégg nga piqûre boo xam ne normalement bu xëy rek day dee ñu libéré lal bi góor gi toog piqûre bi dem ba xaaju guddi rek mu jóg toog di waccu di waccu di waccu daal di ñëw tëddaat ñu xëy suba gardien bi yow xool déewul bi médecin tubaab bi ñëwee comment rek mu daal jóg toog ne ko docteur ba mu fi duggee ba tey piqûre bi gën a piqûre bii musulin maa jox bu demee la góor gi looloo ko sëwee te la jógee nekk ci poison bi ñu ko dox poison bu moom moo moo far moom moom wéral ko loolu mbokk lu mu ñuy jàngal rek mooy inna allaha ala kulli shay'in qadir bul tiit ci dara te mooy yonent yàlla Muusa ma ngi ne lee sos te géej gi firaw naa ngi ñëw ak armée xeetu Moussa ne inna la mudrakun àdduna tukki na inna la mudrakun ndax ci xelu doomu aadama pexe amul armée boo xam ne ñoom ñi nga ñële bani israil nee nañ nekkoon nañ soixante dix mille personnes ay góor ak jigéen ak xale géej jaa ngi ni muy mer rouge luy pexe waaye Moussa mi gëm ne inna allah ala kulli shay'in qadir mu ne kalla inna ma ya rabbi sa yahdi loolu it nga la waaye yow mi jëm ca commerce ba wékkul ci yàlla inna allah ala kulli shay'in qadir yow mi jëm tukki inna allah ala kulli shay'in qadir yow mi jëm examen inna allah ala kulli shay'in qadir loolu la nga xam ne moom ngay gànnaa yoo rek moo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala di fàttali loolu doomu aadama yi innahu ala kulli shay'in qadir borom boobu nag ne xam leen ne wuute bu ngeen mën a wuute ci kaw suuf atteem ci yàlla lay dellu ngalla way ay julit lépp loo xam ne dañ koo siq la ñuy jëkk a xool lan la ci yàlla atte tey bàyyi dee na bàyyi na alal lan la yàlla atte ci alal ji sëy baa ngi nii lan la yàlla atte ci sëy bi lii di luwaa yaa ngi nii lan la yàlla atte ci luwaa yi loolu it moo tax ba ngalla way mbokk julit xam leen ne day wallahi jaaduwul donte ne ñi ngi koy dund ci pays musulman yi ak quatre-vingt-dix-neuf pour cent mooy suñu borom yàlla indi ay luwaam ne atte woo leen nii ñun ñu jël luwa yàlla teg fële créer suñuy luwa bopp yoo xam ne jàpp nañ moo gën a jub moo gën a maandu luwaay borom bi jàll wa ala loole mbokk mi ngi noonu su ko defee borom boobu subhanahu wa taala ni moom mooy atte ca la ma attee keneen du atte gannaawam te it yow jullit loo gàtt gàtt xel yow chrétien loo gàtt gàtt xel waaw ñun ñi gëm àllaaxira wóor nañu ne buñ dajee àllaaxira ba yàlla atte ba pare ndax dana am ku jóg taxaw ne yàlla atte bii daal d'accord ci dañoo attee constitution Sénégal ndax kenn dana koo xalaat déedéet kon yàlla lañu war a delloo atte yi fa hukmuhu ila allah yàlla moomu mooy suma boroom man nangu naa nekkub jaamam looloo tax léegi bi ngeen di taayi lu ngeen wax wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nangu naa ne muhammad jaamam la yonentam la man yonent yàlla day ci yàlla laa wékku ay waay gaa yi yonent bi wóoluwul boppam ba wékku ci yàlla yow mi jóg naan maa ngi wékku ci yonent yàlla luy sa mbir mooy ak ndaf mën na laa passé ngalla waay julit bul wékku lu dul ci yàlla suñu borom mu ne wa tawakkal ala alxayi lazi laa yamut wékkul ci yàlla mi dul faatu yonent yàlla muhammad làquwul da ko gaa yi daal daal làqu làquwul de daa faatu yàlla rek moo dul faatu kon wékkul ci yàlla du faatu yonent boobu nee na man ci yàlla laa dul wékku te it ci yàlla laa daan dellu mi ngi noonu kaana ida azabahu shay'un fazia ila salaa lu ko masaan jaaxal day jóg julli ñaari rakka diis ko boromam jalla wa ala lépp lu masaan am ci ay xéewal day sujuud sante ko yàlla jalla wa ala mi ngi noonu la tax nag yàlla wax ñu ne yonente bi neel li nii laa mel moo ñuy wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko ñun yéen julit ni mboola seen tawakkalu ala allah wékku leen ci yàlla anibu ila allah dellu leen ci yàlla yal na yàlla yombal ko ci ñun
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يرزق الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح
barakallahu fikum suñu borom boobu nee na mooy faatiru samawati wal ard mooy ki bind asamaan yeeg suuf jaala lakum min anfusikum azwaja moo def ñeel leen ci seen bakkan yi ay peer ñii nekk góor ñii nekk jigéen wa min al an'ami azwaja jurga it mu def leen góor ak jigéen yazra'ukum fihi ci noonu la leen di tasaare laysa ka mislihi shay'un moom nag dara merul ne moom wa huwa samiul basir waaye mooy aji dégg lépp aji gis lépp lahu maqalidu samawati wal ard moom la ñeen lii di caabi asamaan yi ak suuf yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir mooy tàllal wërsëg ñeel ku mu soob di ko gàttal innahu bi kulli shay'in alim moom day bépp mbir mooy aji ki ko xam shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuuha tëral na ñeel leen ci diine ji lam dénkoon yonent yàlla nuux walazi awhayna ilayk ak li nga xam ne wahyu nañ ko jëme ci yow wa ma wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa ak lañ wahyu woon yonent yooye an aqimu diina wala tatafarraqu fihi te mooy taxawal leen diini te bu leen nekk di teqalikoo ci diine jooje kabura alal mushrikina ma tad'uuhum ilayhi dana màgg ci bokkaalekat yi la nga leen woo jëme ca allahu yajtabi ilayhi man yasha yàlla mooy tànn jëme ci moom ku ko soob wa yahdi ilayhi man yunib mooy jubal jëme ci moom ku mu soob mi ngi noonu mi ngi noonu ku soob yàlla borom bi subhanahu wa taala day wax fii ni moo bind asamaan yeeg suuf loolu mushrikuun yi sax d'accord nañ ci nee na moom moo ñu xaaj def ñi ay góor ñee mu def leen ay jigéen ci noonu la ñuy tasaaree ci kaw suuf loolu moo tax ba su doonte ni nit ñu bon ñooñee ñu leen di tuddee LGBT lu ñu leen mën a tuddee nga xam ne ñoom dañoo jàpp ne déedéet doomu aadama kenn waru koo tënk naan ko yow góor te jigéen rek nga war a jëm waaye góor bu ko neexee mën na ànd ak góor jigéen ànd ak jigéen xalaat boobu de bu ko àdduna amoon balaa ñuy fay def cinquante ans àdduna tukki kon yàlla nañu yàlla musal seen ay borom bi kon noonu la def mooy doomu aadama di complété ak moroomam suñu borom yàlla nag ne moom mi def loolu dara melul ne moom ca may huwa allahu ahad yàlla derul melul ne moom ca jëmmam ja moom rek mooy yàlla ay melokaani yàlla it benn melokaan melul ne melokaanu yàlla masalan wax nañu ne mooy dégg ndax ni yàllay dégge am na ku koy dégge déedéet yàlla nga dégg malaaka yi sabbal ko wasamaani juróom-ñaar ma ngay dégg jën yooyu sabbal ca biir géej ya ma ngay dégg sanqale ña nekk ci biir montagne ya ma ngay dégg lépp ca amul benn kaddu bu koy itteel ca ba ca des mooy as-sami'u donte nit mooy dégg ñaan ci ku ko ñaan mi ngi noonu sami'u du'a naka noonu mooy al-basir la yaxfa alayhi shay'un dara nëbbuwu ko ba nga nekkee si biiru yaay moo la fa defar gannaaw ñetti lëndëm mi ngi noonu borom boobu it di wax ni moo moom lépp loo xam ni ay caabi asamaan ak suuf la di ca ëbbil ku ko neex ca la ko neex tàllal wërsëg ku ko neex ci lu àndul ak benn raison du kattan du xam-xam du bari at yàlla mooy jox xool ku ko neex ci ay jaamam mu tàllal wërsëgam ñi natt ko xool ku ko neex mu gàttal wërsëgam du ne ak yambaram la wala ñàkk xamam la déedéet waaye yàllay def lu ko neex mu ne nag mooy ki xam lépp naka la koy defee innahu bi kulli shay'in alim wax na la sànq ne innahu ala kulli shay'in qadir moom moo am kàttan ci lu mën a doon te it mu wax la ne ni mooy ki xam lu mën a doon mi ngi noonu borom boobu nag ne moom moo tëral ci diine ji loo xam ni moom la jàngaloon moom la tëraloon dénkoon ko yonent yàlla nuux moom la dénkoon ibrahima dénkoon ko muusa dénkoon ko isa ay yow yonent yàlla bi it loolu rek laa la dénk ca mooy taxawal leen diine ji ca bu leen ci teqali ko mbokk diine ngoog dañ koy taxawal comme ni ñuy taxawale julli julli gi ñu yàlla tëralal képp koo xam ne jàpp nga ne ah juróom yi kat moom doyul nañ ci dolli beneen muy juróom benn def nga erreur bu rëy timis gii kat nañ ci yokk benn rakka mu mel ne gee def nga erreur bu rëy noonu lañu yàlla sante diine jépp ñu taxawale ko noonu jaamoo yàlla na yàlla bëgg ñu jaamoo ko ko bañ caa teqali ko lan moo jur teqali ko mbokk mooy sos ci diine heure bu dee ma sàmba jóg na sos ci diine ji ne lii day moo gën a gaaw a jegeel ngërëmal yàlla ma dem ba jóg moom it sos ne déedéet bii ma indi dara melul ne moom ma paate génn moom it ne bii dara melul ne moom ñee topp ñee ñee topp ñi loolu rek moo jur teqali ko waaye bu jullit ñëpp dëppoon ci yàlla la ñuy jaamu yenent yàlla mooy benn sëriñ bi nga xamee ni nii ñëpp moom lañ war a roy kon boo ko teqalikoo gi dana doon loo xam ne nii luy mën a ñàkk la amma borom bi nag nee na bokkaalekat yi li ngeen leen woo jëme lu rëy la ci ñoom te mooy kaay leen jaamu yàlla bañ ko bokkaaleeg dara nee na loolu moom bokkaalekat mënu koo dégg amma nag yow xam leen ne yàlla mooy tànn ku ko neex ci ay jaamam waaye mooy jubal képp koy dellu ci moom mi ngi noonu yal na yàlla boole ñu ca
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير barakallahu fiikum suñu borom mu ni wa ma tafarraqu nit ñi day teqalikoo wuñu illa min ba'di ma jaa'ahumul ilm xanaa lu dul gannaaw ba mu leen dikkalee xam-xam ba baxiyam baynahum ci bew gu nekk ci seen diggante walaw la kalimatun sabaqat min rabbik bu dul woon a kaddu gu jiitu jóge ci sa boroom ila ajalin musamma ba baa dig bu ñu tudd la qudiya baynahum kon day doon nañu atte seen diggante wa inna allazina urisul kitaaba min baadihim ña nga xam ne nag dañ leen a doonale téere ba ca seen gannaaw la fi shakkin minhu ñoom day ña nga ci sikk sàkka muriib gën jaa tar ci sikk sàkka fa lizalika fad'u ngiree loolu yow wooteel wastaqim kama umirta ca nga jub comme niñ la ko sante wala tattabi ahwaahum ca bul topp seeni bànneex wa qul amantu bima anzala allahu min kitab neel man dey gëm naa ca la nga xam ne yàlla wàcce na ko ci téere wa umirtu li aadila baynakum yàlla sant na ma ma maandu seen diggante allahu rabbuna wa rabbukum yàlla mooy sama borom di seen borom lana amaluna wa lakum amalukum ñeel nañu suñu jëf ñeel na leen seen jëf laa xujjata baynana wa baynakum benn lay du nekk suñu diggante ak seen diggante allahu yajma'u baynana wa baynakum yàlla mi ngi noonu allahu yajma'u baynana suñu borom yàlla mooy dajale suñu diggante wa ilayhi almasir ca ci yàlla la lépp di mujj mi ngi noonu mbokk suñu borom day wax ni ñii nga xamee ne nii ñooy mushrikuuna yi ak ahlul kitaab teqalikoo wuñu lu dul gannaaw ba layu leer dikkal leen ngir beew bu nekk seen diggante ca mbokk julit doomu aadama yi ñaar lañu muy addaaluun ñi nga xam ne dañoo réer rek yem ci réer ga ak almaghdubi alayhim mooy ñi nga xam ne dëgg da leen dikkal ñu lànk bañ caa topp te loolu itamit mbokk yonent bi waxoon na sallallahu alayhi wa sallam ni yahud ya teqalikoo nañu nasaraan ya teqalikoo nañu julit yi daan teqalikoo ci juróom-ñaar fukki parti ak ñett loole juróom-ñaar fukk ak ñaar yépp dañoo yeyoo sawara donte ni xadis ba am na luñ ca wax waaye la kulli xaal mi ngi noonu lay constat daal mooy mat nañ juróom-ñaar fukk ak matuñ juróom fukk li ñuy constaté moom mooy julit yi ñoom teqalikoo nañ teqalikoo boobu it mbokk julit lan moo ko waral mooy am nañu teg seen tànk ca la yonente ba nekkoon am na ñoo xam ne teggi nañ ko teg ko ci leneen yonent bi alayhi salaam danañu woon alaykum bi sunnati wa sunnati xulafaa'i rachidin topp leen suma sunna ak ña nga xam ne ñoo ma wuuti te jub tey leen ko moy ko ci seeni dëgëj waaye maa ngi leen di moytuloo iyaakum wa muhdasatul umur moytu leen yi ñuy sos sama gannaaw loole ñu sos comme ni ñu ko waxe woon sànq wallahi loolu mooy li gën a teqale la nga xam ne moom mooy julit ñi loolee ñu bàyyi ci xel bu baax ca day feeñ ci lu bari tey ji da ngay gis ni bari nañu bu ñu doon julli ñun ñëpp ñu bokk melokaanu julli mais bu ñu sëlmalee rek doomu aadama yi am na ñi ñuy jëfandikoo bu kiy génnee kiy génne rek ñu daal di yëg benn différence nag bu commencé nekk ci seen biir mi nga noonu loolee mbokk lan moo koy waral mooy lépp loo xam ne lañ ko sos waaye jurit ñi bu ñu yemoon ci la yonent bi jàngale seen diggante day yomba dëppale lool borom boobu nag subhanahu wa taala ni bu dul woo nag dama tëral ab dig ne àdduna day bi sàngam lay tukki allaaxira maa ngi koy taxawal bi sàngam kon ku juuwe woon ak sama diine rek ma daal di lay atte ci diggante léegi léegi jox la sab cër waaye nag yàlla du doxe noonu suñu borom yàlla mooy alxalim yàkkamtiwul lu waay neex na def waaye bis mi ngi ñëw borom boobu nag ni ña nga xamee ne nii dañoo jëloon téere ba yi tawraat ak injil doon ne ko ca seeni maam maam yooyu ñu xamaloon leen leen ne leen ne yonent yàlla muhammad mi ngi ñëw te yàlla waxoon na ko tawraat wax ko injil zalika masaluhum fi tawraat wa masaluhum fi injil ne mi ngi ñëw bañ demee ba yonent boobu dikkal leen ñu daal di cay sikk sàkk ba pare al murib murib dañ ne mooy sikk sàkk boo xam ne yaa ngi ciy tiit ndax bu dee ne yow juum nga rek musiba dalay dal loolee bokkul ak yenn sikk sàkk yu woyof yi waaye xam nga ne ñoom maadaama dañu amoon problème rawatina ahlul kitaab jàpp ne yonent moom yahud rek la war a doon tey kii ab arab la ñëw ne moom mooy yenent bi jiite ñëpp dal na ko waaju saay saay soosee doon waxee mais un jour un bédouin se lève et dit que vous tous ici votre chef yaa ngi dégg ah kaddu googu yàlla na ko tuub balay dee waaye bu ko tuubul day dana day waar lool nga noonu mbokk kon loolu perturbé woon na yahudi yi donte ne tegtal ya leen seen maam yi joxoon ci tawraat yépp gisuñ ko ci yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nekkoon nañ ca chàkk chàkk boobu moo dal nafiq naafiq mooy julit mooy yéeféer bu sol boobum julit léeg-léeg ñu gëm léeg-léeg ñu weddi kullama adaa lahum mashaw fiihi wa iza azlama alayhim qaamu tey ñu gëm ëllëg ñu weddi sikk sàkk mu riib baram boobu nag subhanahu wa taala ne fa lidalika fad'u mboo ko aaya bi ñu nar a jàng benn aaya rek la am ci alquran bu méngoog moom muy ayatul kursi mooy aaya la boo xam ni fukki ndigal yàlla joxe na ko ci benn aaya fukki ndigal ayatul kursi it fukki xabaar yàlla joxe na ko ci allahu la ilaha illa hu alxayu alqayum boo demee kër gi nga xool ko fukki kii la amma fii ndigal bu njëkk bi borom bi mu ne fa li zalika fad'u wooteel jëme ci yàlla yow jullit it foo mën a nekk wooteel jëme ci yàlla falillahi alhamdu soo demee suñu école yi tey ji yaa nga fay fekk waa AMD mi ngi noonu mi ngi noonu association des musulmans de Dakar fekk fa waa AMS ñi nga noonu association des musulmans du Sénégal fekk fa waa FIED fédération des étudiants et des élèves étudiants du Sénégal loolee ñi ko sosoon léegi am nañu ay sët falillahi alhamdu ci suñu école yi daanaka lycée Dakar yi léegi néew na lycée boo xamee ni nii ay conférence yu def conférence organisé nañ ko fa loolu mbokk ndaw ñi ñu ngi leen di encouragé ci loolu seen morom ya am na ñoo xam ne seen temps seen alal guddeeg bëccëg ci équipe bi football bi la ñee théâtre ba la ñee basket ba la ñee lamb ja la ñee nangam ja la kon ngeen dajaloo di woote ilallah ngal la waay fadu wooteel ci yàlla ñaareel bi yow nag yaa ngi woote fastaqim nag maa umirta jëbal nag comme ni ñu ko sante ki yàlla jëkk a jox ndigal na ko ne jëfe ay ndigalam mooy yonent yàlla bi loolu moo tax Sénégal moom ngay gis benn waay ma nga naan ba ne xàngalang ñu naan ko diw jàpp ne moom garaawul moom daal sut diw la lu ko neex def mbokk loolu amul de diine ji ñëpp ci bokk yem jubal comme ni ma la ko sante fastam kama umirta loolu mooy aji daa bi del woote ca la ngay woote nga jiitu ca ñetteel ba moom mooy wala tattabi ahwaahum bul topp bànneexu ñi nga xam ni dañoo jadd yoonu yàlla te mbokk julit yow miy góorgóorlu ci sunna di góorgóorlu roy yonent yàlla bi képp ku créé ay bidaam woola ca nga la waay bu ko ca topp ku créé ay caaxaanam woola ca maslaha bu tax nga topp ko ca déedéet la tattabi ahwaahum gannaaw ba mu ne ko waqul amantu bima anzala allahu min kitab ñeenteel bi mooy nel man de gëm naa téere yi yàlla wàcc julit yaa gëm tawraat yaa gëm injil yaa gëm zabur yaa gëm alquran donte ne topp gi moom alquran rek ngay topp comme yaa gëm nuux ibrahim muusa ak yeneen ci yàlla yi waaye topp gi muhammad sallallahu alayhi wasallam rek ngay topp juróomeel bi wa umirtu li aadila baynakum man day dañ maa sant ma maandu seen diggante maandu mooy ku ne nga jox ko ak xam bokk na ci loolu it maandu ci say atte looloo tax mu doon wax naan wallahi bu Fatima sàccoon man yonent yàlla bi may dagg loxoom mu ne allahu rabbuna wa rabbukum ñu ngi leen di seedal yéen yéefiir yeeg mushrikuuna yi ñun yàlla dong lañ nangu mooy suñu boroom yàlla moom it moom dong mooy seen boroom kon kayi leen ñu bokk jaamu yàlla kenn ci ñun bana jël moroomam def ko arbaba min dunillah gannaaw ba mu ne nag lana amaluna wa lakum amalukum suñu mboole mi jëf ñun rek la ñeel bu baaxee ñun la ko yàlla yi fay bu bonee ñun la ko yàlla yi fay yii nit seeni jëf lu ca baax lu ca bon ci yéen dong lay yem lana amaluna wa lakum amalukum la hujjata baynana wa baynakum du ne dañuy ñëw jóg xeex ak yéen baba lay di teqale suñu diggante ak seen diggante aaya yi ca Makka la wàccoon yàlla joxugal yeneen ci yàlla digal xeex ordre ci mu xeex amma ba mu demee Madina nag la ko yàlla nag jox ordre ci ne nag dóor suñu nangul ab mushrikuuna mu nekk fii di saxal ak yéeféer ci Makka ak lu ko wër mi ngi noonu la nga xam ne mooy juróom-ñeenteel ba mooy yàlla mu dana mas a dajale suñu diggante te loolu yowmal qiyaama la te la yàlla dajale yéeféer yi jullit ñi naafiq yi àtte seen diggante yàlla moom it ilayhi almasir ñun ñépp ci yàlla la ñuy mujj te loolu mooy inna lillah wa inna ilayhi rajiun loolu it yow jullit bi xellu ngal la waay dellool sa bopp yàlla bala laa say mbokk takk di la delloo yàlla dellool sa bopp yàlla bala laa say mbokk takk di la delloo yàlla nu may delloo ci yàlla mooy wéetal ko bu ko bokkaale ak kenn xoolal ay ndigalam nga def ci sa kéemtalal kattan xoolal ay teram nga ba ko bëgg ko bëgg goo bëggul kenn ragal ko ragal goo ragalul kenn yaakaar ko yaakaar goo ragalul kenn sukkandiku ci moom bañu sukkandiku ci kenn nii dong ngay delloo ci yàlla yal na yàlla delloo ñu ci moom gën jaare fa ci delloo yal na yàlla defal ñu aafiya fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ndax nit ki mën nga yeewu rek commencé say azkar ca doo laal ndox ah kay azkar yi ñu yonent bi jàngal yépp fi nga yeewoo sa kaw lal la alhamdulillahi alladi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وزن لي في ذكري yëpp ay askar la yonent bi alayhi salaam daana jàng alquran sax avant muy dem di jàppi heure bu masaan yeewu daana taxaw jàng inne fi xalqi samawati wal ard ba ba aaya ya di jeex kon loolu dara newu ci mi ngi noonu wallahu aalam naam ah bismillah naam naam mu ne waaw jigéen am na droit taaroo lépp loo xam ne maaruf la tant que nuru nuru lu wucce ay yéeféer loole nuru lu la ca góor fii jigéen nuru nuruluwul góor nuru nurul yéeféer loole dañ ko ko tolérer bu ñu xoolee ci aaday taaru lislaam jigéen ñi lislaam ya loole gisuñu ca woon la nga xamee ne nii mooy bëtt suñuy bakkan di ci def ay jaaro loolee ñu ngi koy gisee ci indo yi ak jigéeni caaxaankat yi bu doonte ne nag aw xeet woo xam ne ñoom loolu nekkoon na seen aada avant l'islam di ñëw nga xam ne ñoom roy wuñ roy nuru nuru lu wuñu benn yéeféer loolee daal leen ko toléré mais su ndaw ñi koy def du seen aaday maam du aaday dañ donde ci jigéen ñi l'islam nuru nuru dañuy nuru lu ñeneen looloo tax ñu leen koy tere wallahu aalam naam bismillah naam loolee sax na ci sunna sunna yonent bi alei salam bàyyi fi ay kaamil waaye maadaama naafila la loolee ñuy yor kaamil loolee dara newu ci ñaka yor dañ ciy jàngaale loolu dara nekku ci bu doonte ne farata la daal dañ naan farata moom doo ko def mais maadaama naafila la loolee dara nekkul ci nga yor sa kaamil wallahu subhanahu wa taala aalam naam kon mbokk yi yal nañu yàlla dëppale ak ngërëmam ah sëñ bi ñu bàyyi bi beneen yal nañu yàlla dëppale ngërëmam fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain